asalaamaaleykum yéen mbokku téléspectateurs yi liñ doon waaj ci ay bis ay weer ay fan ñu ngi ci tey muy lan muy grande journée culturelle Cheikh Ahmadou Bamba ñu koy amalee fii tey ci biir King Fahd Place ci teewaayu Sëñ Muntaxa Mbàkke li ngeen gis sama ginnaaw nag mooy délégation Baye Fall ndax yoonu murit mënuñu ko wax te neewuñu Cheikh Rafal ba tax na zikrullah bi ngeen di gis ci ginnaaw mooy fësal seen yéene ci bis bi kon nañ dugg ci biir xool leen laaj leen ban yëg-yëg lañ am ci bisu tay bi. tey dañoo yëg-yëg am yëg-yëg bu rëy ci bis bi euh, ñu ubbee ko Sam Fall nga xam ni suñ yaakaar ak tey ëllëg maam Cheikh Ibrahima Fall la mooy tey suñ tey ak ëllëg lépp tey ñi day wane ni àdduna bi euh, mi ngi wane ni tey Serigne Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall dafa jot lu jot ci modèle boo xamante ne si moom mooy permettre moom bépp nekk ci jàmm ci lislaam Cheikh Fall en rek da nga naan mooy baabul murid yi nag mooy buntu murid parce que bu dul woon Cheikh dina doy waar trop Serigne Bamba dina ñëw te tamit dinaa dina demee neneen quoi donc ñu ngi koy sant bu wér ndax moom lépp ci moom la ko Serigne Touba jaarale li Serigne Touba naan boo leen toppee Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima doo leen ree doo leen juum donc loolu rek wax na lépp quoi ñu ngi koy sant bu wér ci yokkute yi lu ñu xam ak lu ñu xamul ndax lépp ci Cheikh Ibrahima la ko jaaree jërëjëfati maam Cheikh Ibrahima Fall. daal Cheikh Ibrahima baax a baax di nuyu ñi fi teew ñëpp Serigne Touba moomu tànk ginnaaw tànk kanam rek laaw ñu ngi sant nag ñu organiser dem ci guddi laa yegg information bi ñu ne ma Cheikh Ibra daa am bis bu ñu ko jagleel fi maamu ndaw mu Lam Fall moom moo wax mu ko ñu ngi sant baax nag kuréel gii nag ñu ngi ñu ngi woo ñëpp ñëw kuréel gi ndax lii mooy buntu bi ndax maanaam Cheikh Ibra Fall maay mooy bunt yoonu murit mbokk yi lii lañ leen indiloon jëlee ko ci kuréelu Zikrullah bi nekk suñu ginnaaw di lépp ngir jëmbal bis bi